waye nangun nun ñëpp it nu bokk it gën gor góorgóorlu bokk it gëna farlu bu baax ci nangu ko jaamu te selal ko nangu te di ko fàttaliku gor góorgóorlu ci jàng karim te baña xey tusok ba jant so di neenal luma soxal la luma yitel la luma ñor la te li ma wax kat jafewut gis nga ni ma def ci bi donte ni ngay def kamil bi kaf al kubair ya hayn sat sikur rahmat rabbika xabduhu zakariya donte lol rek nga manit bul ko neenal ci bis bi tudd buñ ko neenal am na ko ma waxtaanal léegi mu ne liggéey bi damay njatt ma ne ko na la ndigal li di njatt muy fàttaliku yàlla ak tudd ko moo gën liggéey bi di la njatt ndax liggéey bi moom waxtu wu ne mën naa dog tudd gi ak fàttaliku ko dalay delloo ci moom te mooy tàmbali mooy yemuwaay te ci lañuy mujj te kuñ takk say tànk takk say loxo ah, fofa dang ko soxla de bu la dara ñatt lu may ko bu la dara ñatt lu may di tudd lu bu la dara ñatt lu may di ko ñun ñep nañ ci ba xel tudd yalla it kep ku koy def dafa am melo mu wara amé moy set set dafa am solo ci ab julit set set ab julit yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa fonkon soccu lol set ci say sër set ci say yaram boole ci du gëttu léeg-léeg na nga gis nit ku ku ku silwiise ñu ni dafa bëgg àdduna laaj ko yéene mbaxam lan la jublu ci silwiise ga wala déet léeg-léeg nga gis nit kuy defar boppam ñu ni dafa bëgg àdduna déedéet njëkkeel xol bi waaye yaram bi dafa am la ci war xam nga xol kenn du ko gëttal wala gëttu xol boog bokkut ak gëttug boo bokkut ak gëttu yaram waaye man damay wax ni kat képp koo xamante ni sax xamoon nga ni tey ngay gont jëm àllaaxira na nga sangu ba set na nga sollu set na nga gëttu moo ne ab néew day kenn ku ci nekk xam na ni géntal na adduna te duutu fi dëkkeeti mukk te ku ne xam na ni ci suuf si mu bàyyi ko woon ci lañ koy delloo waaye téru dañ koy sang ñetti sang luñ ci jublu bëgg mu gën a set ñu noppee dañ koy gëttal te buñ ko yooree ci bàmmeel bi ba tëral ko dañuy sottiwaat gëtt ci kawam am déet tey moo ne ci biir suuf nga ko dugal suuf wër ko suuf na ci kawam te du tee nga gëttal ko gannaaw ba nga ko setalee kon nag yow muy dund nun nuy dundandi di ko tudd aka sàbbaal aka fàttaliku nañ ci boole ak set wecc te tudd ko ni ma ko waxee léegi ak fàttaliku ko na not ci nun tuddu yalla nak nit man nga ko gis mu yor kurus te fekk mi ngi tuddu yalla de nit man nga ko baña gis mu yoru téré fekk mi ngi tuddu yalla de waaye nak ah ñepp joti wuñ fa de sa mas gi nga joti wuñ fa nañu ubbi kamil bi tok diko jang jàng te di ko lu mu néew néew néew ay way kenn ku ne ci nun bo xoolee li ngay def ci sa téléphone da nga am kersa lol ci sa ak sa borom wallahi lancim ku ne ci nun bo xolé li ngay perdre ci sa téléphone bo ci dindi won touti rek ci duggu téré bi dana am solo lool te dana la amal njariñ ba keroog njariñ jafe kenn ko ci nek li ngay perdre ci sa téléphone bo ci wañi won rek subhanallah alhamdulillah allahu akbar ak weneen yoon woo mën a jaar ci turam yu sell yi wàññil fee tuuti rek gis lee day jeex de te lii day da nga ko soxla ci jamono boo xamante ni loo ca defoon danga ko rëccu lu teewoon ma yokk ko lu teewoon ma gën koo sellal kon nun ñëpp nañu bokk gën a góorgóorlu ci loolu bu baax